Assalamualaikum eh, mbokku Senegal, assalamualaikum mbokku Thiès Mohamed Mbaye responsable jeune réew mi Thiès Ouest yàlla dafa def tey ñu woote woon presse bi pour vraiment leeral ñi nga xamante ni saay-saay yi nekk ci dëkk bi nga xamante ni xelu nit ñi ak lëndëmal xelu nit ñi leen rawatina ki nga xamante ni ñëpp xame nañ ma ak moom muy sama frère Ndiaga Diaw bu PDS. Euh, li mu wax yépp démb ci président Idrissa Seck ñépp xam ne li mu wax ay contre-vérité la ñu ñëwoon tey pour indi si ay éclaircissement tuuti ci ci loolu mu wax euh, yàlla dafa def démb ma dégg ko mu wax ne président Idrissa Seck dafa am patrimoine boo xamante ne nii dafa jéggi dayoo te jaaxal na ko mu ne président kenn mësul gis premier ministre bu am patrimoine bu mel noonu ma koy wax ni ko njaga da fàtte nii yow yaa njëkk a taxaw fii ci Thiès nga def lettre xaw ma nag jikko bi la nit ñi xamee ak bi ma la xamee bokkul nga bind lettre nga ne président Ablaye wàdd moo la woo téléphone ne la li ñuy tuumaal président Idrissa Seck du début jusqu'à la fin loolu yépp dara lu ci dëgg je prends en témoin le frère ba sàll ma lay laaj nag sa waxi démb ak sa waxi tey ban moo ciy dëgg ñaareel bi ma defal la tuuti rek historique parce que yow njaga mënoo wax ci diggante président sa Seck ak président Ablaye Wade ñoom ñaar seen démb puisque fekke woo ko may def tuuti rappel di wax ne 2012 la njaga jaw dugg ci monde politique ndax ci wax sa xalaat la njaga jaw njëkk a duggee wax Père Bakar Diagne ak Ndeye ware Fall ñoo ko jël indi ko ci parti bi booba génération du concret mi ngi am ñu xam ni Karim Wade mi nga xamante ni moom la ñuy wax ne mooy seen candidat mi ngi pasar pasaree alalu Sénégal Karim Wade moomu tey créé génération du concret ñoom ñëpp ñu daw dem fa di wuti lu ñu am mom ci loolu sax yàlla dafa def mu wor Bakar Diagne ak Ndeye Waré Fall war fi Bachir Diawara mujjee dali ci masali dinaa ci ñëwaat nag mais ma defal ko tuuti historique parce que njaga xamul dara ci PDS ñun tey jamono moo tëre di rek ba ñun ñii tey ñu génn PDS mais ñun bu ñu nekkoon PDS ba tey njaga jaw du mën a taxaw naan moom responsable UGTL la parce que njaga nag ca dëgg-dëgg wax dëgg yàlla ab menuisier métallique bu jógee fële barki démb doo ñëw ni da ngay jël suñuy place ñun ñi nga xamante ni ci politique li li li di wax naan alalu làmb lañ leen ngéntee ñun alalu politique lañ ñu ngéntee njaga dama lay fàttali ni la Ablaye Wade 88 la jël Idrissa def ko directeur de campagne Idrissa France la nekk di woo Ablaye Wade di ko wax nii ngay def nii ngay def nii ngay def Ablaye ni ko li nga may wax dafa compliqué xajul samam xel dama bëgg nga dagg billet nga ñëw Sénégal nga régler lool Idrissa bi mu ñëwee fii 88 ñibbi Sénégal ñu gagné Ablaye Wade élection 88 bi mu paree foofu dafa dajeeg James Baker moo nekkoon directeur campagne George Bush kooku xamal ko ni ko yow da ngaa nekk directeur de campagne Ablaye Wade ñu gañe la man ma nekk directeur de campagne ab euh, George Bush man maa gañe ni ko li ma bëgg mooy nga dem jàng ci école yi nga xamante ni fa la ñuy jàngalee nan la ñuy yoree réew Idrissa ne ko loolu la muy laaj man awma doole ju mel noonu am benn milliardaire américain bu ñuy wax Parvin kooku moo jël Idrissa ci ci àdduna bi laa la wax la ñu tànn six personnes yoo xamante ni jàpp nañ ne mën nañoo diriger di réew ñu fayal leen ñu dem jàngi Idrissa foofu la ko suñu borom tàmbalee di baaxee moo tax sooy wax naan depuis 2000 Idrissa Seck mënu fi am benn fortune bii da may jaaxal njaga Pape Moussa Diop menn xam nga moo la jiitu PDS te ñépp xam nañu Pape Moussa Diop moom ak Boubacar Sall ñoom ñoo taxawal PDS fii à Thiès Pape Moussa Diop moom ngay dem laaj kan mooy le président Idrissa Seck Idrissa moo génne PDS cotisation 98 salle de délibération bu maire bi la Idrissa dajale képp ku nekkoon responsable PDS ñi seen kër nekk sàkket ñi seen kër nekk zeng mu yëkkati ay enveloppe di leen jox di leen wax dem leen ngeen préparé wu dañuy dem pouvoir man mii di wax ak yow maa ngi carte grise oto boo xamante ni PDS moo ci nekk te loolu ba ma koy am c'était pas en 2000 pour ma wax la ni la li ngay wax ci PDS xamoo ko xamoo ci diggante Idrissa Seck ak Abdoulaye Wade dara ñaareel bi. moy suma la suma la déggé ngay wax di tuddu Talla Sylla nan Talla Sylla way mo fi tane Idrissa sek wa c'est parce que barki dem da nga dem biñuy wax waxu ciowal souf da nga dem ñu jox la terrain te numéro parcelle bi bo bo waxaatee dina wax numéro parcelle bi ak wax lan nga ci def ñettel bi moy ndaga yow xamna nak da nga bëgg buzz ak bëgg ñu dégg la ci jamono covid bi ndax ki la doon dimbali te yalla def tay mu jóge fi muy Aly Ngouille Ndiaye yàlla def na tey jóge jóge na fi da ngaa nekkoon ci say pexe nag yàlla ñëw ci ak ay pexe boppam ndax wa yamkuruuna wa yamkurullaaha wallaahu xayrul maakiriina yow yaa ngi woon ci say pexe ba taxoon nga fi doon menacé ay commissaire de police di dawal oto bu amul këyit di ko dawal si diggu Thiès te ba pare damay interpeller le procureur général bu Thiès puisque Ndiaga Diaw oto bi muy dawal amul këyit dama ko ci interpeller te doon na fi def ay transport irrégulier di dem ay Dakar dafa yóbbu ay nit di fayeeku xaalis te oto bi muy dawal amul këyit te ban këyit la Ndiaga jaw yoroon ba war a mën a dem dakaar di jo romb gendarme yeeg policier yi loolu bëgg naa ñu indil ma ci ay éclaircissement moom njaga jaw ñetteel bi Ndiaga jaw man Mouhamed mbaay may wax ak yow ndax yow su ma génnee ci yow dara dootul des ci yow bi ñuy wax dégg naa la si télé yeeg rajo yi fu ne nga wër fa naan masali yaa ko ëpp parrainage ak lii Ndiaga waxu parrainage bëggatuma mu génn sa gémmiñ yow bëggatuma yow Ndiaga Diaw nga taxaw ci Thiès naan def naa 1000 parrainage puisque man parrainage yi gënoon a bon yi nga xamante ni moom laa seggoon ñu bon nga fekk ko sama néeg nga sàcc yóbbu ko dem déposer ko PDS bu ma déggati nga waxu parrainage Ndiaga Diaw ñeenteel bi mooy su ma déggee ngay wax di wax ne président Idriss Seck fortunam fan la jóge loolu président Macky Sall mi nga xamante ni tey moo nekk ci boppu réew mi mën na seede ci loolu parce que tay Idrissa Idrissa Seck ci histoire politique du Sénégal le plus grand complot d'État bi gëna a mag ci histoire du Sénégal Idrissa Seck lañ ko def te Ablaye Wade moko def wa dégg naa nag nga ne Idrissa Seck dafa def cumul de fonction ci conseil départemental ak président conseil économique et social malay wax ni la njaga bul fàtte ne Ablaye Wade moo fi jël six portefeuilles ministériels jox ko doomam Ne je dirai à ta maman que tu as bien travaillé six portefeuille la jox doomam Karim wad Wade aussi yi jox ko doomam Karim wad yëkkati Fesman jox ko doomam sinjeli wa da doon iñaane ndonom deewinam ñaaw na tey amul ludul dul benn doom bu góor ñu exilé ko mu génn dem Qatar te bi muy génn dafa négocier ku nekk dégg nga barki dem Omar sar li mu li mu wax Idrissa ba muy wax abla wad ne ko ci mir bi nga jëm lii la ko doon bañal yéen waa PD suñuy wax waxu yàq alal ak waxu képp kuy di dilaate alalu askan askanu Sénégal yéen waratu leen cee wax yéen waa PDS PDS nag dafa àgg ci bul ko laal bul ko jege moo tax nga mën a taxaw naan yow yaay responsable ugtr ak njaga yow mënoo gañe benn bureau de vote en plus ma lay poser question di la laaj lan moo la teree nekk conseil municipal bala ngaa wax ne yow da ngay nekk responsable communal wala responsable départemental day fekk nga mën a nekk ci benn liste jàll ci liste élection locale parce que mooy baromètre bi gëna tuuti bi ñuy nattee ki ba xam mën nekk njiit wala mënul nekk njiit ma lay wax nag ni la lii ngay wër di ko wax ci Thiès c'est parce que Thiès waaye dañ laa xam ndax sa restaurant bii tey nga nekk difa liggéey barki dem bi nga fa defee décalement maire Thiès Ouest arrêté travaux yi da ngaa daw bureau Aline Sow di ko ñaan ak di ko saraxu pour ñu bàyyi la nga continuer est ce que yow njaga booy wax waxu nit kuy wax waxu enrichissement illicite est-ce que yow sàmmonte nga ak àqu dëkk bi nga xamante ne war nga fee fay ay impôt ba xam yaa ngi koy fay ba pare ma xamal la benn mbir doo gor puisque soo doon gor keroog bi ñu la dàqee AIBD Ablaye Wade yóbbu la fa defal la fa salaire u 900000 ngay menuisier métallique lan moo la war a mën a may salaire u 900000 foofu bañ la dàqee jatara moo la jël defal la contrat mairie ville te daawoo xëy si ñoom nag ñoo ko def jatara moo ko def moo tax ñi mu war a jël jëlu leen. moo tax tey nga mën a taxaw fii di wax quoi que sa soit daawoo xëy mairie ville bi taala si la ñëwee la contrat bi arrêté pour wax la ne la nag am na yeneen ak yeneen yoo xamante ni man njaga su ma génnee ci yow dara dootoo ko desee dama lay prévenir nag su ma déggatee nga waxaat lu jëm ci président Idriss Seck dinaa génn def yeneen déballage yoo xamante ni dootoo waxati fii ci Thiès mbokk yi maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm je vous remercie